li xaam seytaane daw nga xoo sa morom yi ne paayee la dàqoon waaye kay seytaane ñëwal yow la ñu ànd ak kaay di ko xooxaat bu ko defee nag mu mujj ca doom ja laxasu ko ba kañ ku ko mën a teqale seytaane du yomb ay ji tegu ci yàllaa ngi tagg sayduna usmaan muy aman huwa xaanitun usmaan yàlla rek moo xam ku ko dàq jaamu yàlla jaamu yàlla am heggoon na ci bët bu set bu jullee gexe naafila li mu war a naafila ba pare mu des benn rakkaa witar gannaaw bi mu julee ñaar rakkaay safaa mu des witar mu ne allahu akbar jàng fatiha commencé ci baqara ba ci minal jinnati wan naa si door a rukkoo bu ca bàyyee ko door a sujjoot door a dem tëri guddi ga jeex na bët bu set rek benn rakkaa benn ra witaram mi ngi ko daan naafila kaamilu alquran te ba muy def lii yonentu bi rappel na ko ci liste bi war a dem aljana xoo na ko aboubacar aljaana nga jëm yow sayduna omar aljaana nga jëm yow sayduna ousmaan yow sayduna aliyu yow talxatu sayduna talxatu yow saadu ak said yow abdourahman ibnu awfu amir bun jaraax lim leen ba ñuy fukk ne jaana ngeen jëm keroog bañ leen waxee lii ci la ousmaan gën a takk ndiggam guddi gu jot mu jàng kaamil ak alquran witaree ko waaw kon ñun ñun waxaguñ dara fu ñu war a lu ñu war a def ñun de waxaguñu dara nga dara rek yow na commencé reer rek tëdd am ñoo xamne buy guddi gi buy buy lëndëm gi manam buy jant bi so seen bëree ya sona nelawa nelawa nelawa nelaw ba passé 10 heures na xalé yu góor yi jamono ji nelaw rek hen guddi gi yam ngay wëra wëra wër ba 3 heures passé 4 heures ngay door di tëdd nelawa nelaw ba midi passé amo lo ndeké ngay laaj mère beeg pa beeg passion bi 100 francs may ma jënd mburu xam nga wumu nga heew xeew ko ku ti rek sa wërsëg ti suba tel lañu sédélé wol yi bu la féké ngay nelaw yalla bala jox ñay nelaw jox ñi xew yalla bala jox ña tok jox ña taxaw su ko défé kon erreur bobu sayyidna aïsa musna ci nelaw sa yontu ne ko jugal erreur bi kenn waru ci nelaw da nga war erreur bobu boobu di tëdd di tax bi ne ku julli suba di tuddu yalla ba jant bi fenk dañ la bindal yolap ku aj makka aj gu mat sëkk ak ku umra ji umra gu mat sëkk nek kon min mën tok fi fekk na makka tuddu rek julli fajar rek téye sa kurus wala nga téye sa alquran di jang ba jant bi feng boy teud nga doora a tëddaat mu ne dañ la bindal manam yoolu ko umra ak ko hajj lol bo ci saxé sa dund gi yep da nga bëri yool waye yow waxuma la fajar gi mom la jënti woko sax nelaw rek do julli fajar bala nga yew amna waju mako laaj ne ma dama bidanti ba midi ma wara julli fajar may laaj dama koy yelom dama koy biral mané ko dang koy biral andak gatcha taxawal ci digg kër ga jang ko ca kaw nit ñi xamne ya nga doora julli suba lol mo ca war sayyidna usman nak li la daan def amoon nañ mag mu baax maam rawxaan ngom daana naafila alquran par par guddi mu mos jiite benn siise siise mu am benn rakka ba muy jugaar rek mu daw benn rakka lañ am daal ba sëñ bay jugaar rek moom mu daw mais comme beneen rakka bi kay du ma fi fekk guddi ku jot mu naafila kaamilu alquran kon ku ca góorgóorlu tamit yàlla dimbale la ca boo jéemee rek yàlla dimbale la ku jéem rek yàlla dimbale la ca motax muy taggu uthman ne aman ndax ka nga xamne huwa mom qanitun aji jaamu la yàlla ana layli waqtu guddi yépp saajidan mbir mu muy aji sujoot wa qa'iman muy aji taxaw taxaw ak sujoot rek la jeexal guddi ga lu mu koy def yahdharu ma ngay ragal axirata mbugalam xalaaxira wa yarju ma ngay yaakaar rahmat rabbih yërmandey boromam ku melni ndax man na hema ku melun ni deret kon ni la don def lutax mu koy def nak ñaar rek yaakaar aljana ragal ragal ragal mbugalam àllaaxira ab jullit li ma la waxoon dafa boole boole ñaar xaw fa rajaa rek yaakaar ba yaakaar ne buy kenn dem aljana moom lay doon léeg-léeg mu ragal a ragal a ragal ba yaakaar ne buy kenn dem safara moom lay doon amoon na wenn waxambaane wu doon génn àdduna ki jamono yonantu bi yonantu bi ñëw di ko seet si fekk ma nga feebar feebar bu métti ne ko yonantu bi ne ko naka sa yaram mu ne ko rek ñaar daal yaakaar lool boole ko ragal lool waaye ragal naa bàkkaar yu bëri yi ma nekkoon ku bëri bàkkaar laa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko ragal gii nga ragal boole kook yaakaar yàlla da cay dëgg yaakaar gi nga ko yaakaar mu dëggal ko sa ragal gi nga ragaloon mu mu fanq ko ba sa bàkkaar yëpp mu jéggal la ko moo tax ragal ak yaakaar xol ñu dajee rek yàlla effacé ragal ga dese fa yaakaar ga waaye yaakaar nag foo koy dégg lu yaakaar lu bala ngaa yaakaar da nga yaakaar lu way nek ci tiaxan ba de nan yermande yalla yatuna foko tek boy de boy yakar da ngay da ngay ci lu yakarlu nga xamne la yalla santane yang cey def la nga man lam tere yang cey gor góorgóorlu diko bayyi la nga manut nak ak li nga xamne dang ca nga lu nga yakar ci yalla mottalil lako ko nek sa bakkan lu la neex nga def ko bu waxe nga ne yalla eh, mën a nangam ak nangam ñen ngi sa wax ñu ne xol la ay ser rek ku wu sa xol man na rafet joxe horo sa xol man na rafet joxe wu asaka sa xol man na rafet yooyu yëpp kon erreur rek la ñoo koy wax rek waaye yàlla waxul ko kon da boole ñaar yëpp la man mën ngay def ba rey sa bopp boole koog tamit nag ànd ak ànd ak maanaam boole ko ragal boole koog yaakaar Abu Hanifa aj ji mu mujj aj ndax booba màgget ne mu yaakaar ne dootul aj seeti mu ñaan bëkki néegu kaaba ga nañ ma ubbil kaaba gi ñu ubbil ko ko mu jël benn tànkam ndeyjoor ba teg ko ca tànkam càmmooy ba di julli ca biir jàng fatiha baqara ba ci ala ba ca Maryama mu door a rukkoo sujjoot jugaat jàngaat Maryama ba ci min a jinati wanaas mu door a rukkoo sujjoot ba mu paree mu ne yow yàlla jaama ngi nii bu bëri bàkkaar te yaakaarut ku dul yow yaakaarutul ñëwaat fii ci sa néeg bii di ka ci ci kaaba gi ci la dégg kàddu goo xam ne ko abi abu hanifa mbooleem loo ma sa def ci tarxis yàlla jégal na la ko aljaana nga jëm ku la sopp sax dem aljaana kon xam nga ne kooku góorgóorlu na waaye yaakaar rek Eh, yaakaar gu ëpp nag baaxut yaakaar te yow defoo dara boo yaakaar da am ci loo yaakaarlu waaye nag yaakaar te yow tegoo sa tànk fenn loolu tamit caaxaan rek la aaya ji mi ngi tagg saxaaba yonent bi seen dundu lépp di xam-xam mënuñoo xem ak ñi xamut xam-xam kon yàlla tagg na xam-xam ñi ko xam ba bay àdduna bi tukki duñu xem ak ñi xamut ñi xamut hal yastawi lazina ya'lamuuna wa lazina laa ya'lamuun su ko defee nag xam bi ci gën xam looy jaamoo sa borom te bi nga ko xamee nga di ko jëfee xam ko te jëfee ko xamul solo boo jeexaloon téere yi ta doo ko pratiqué yaa ngi mbaam mu sa fi téere xel Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ne inna alladi lam yaxsha rabbal aalamiina wa laysa bi aalimin walaw afnal funuuna mu ne ku jeexal mbooleem fànn yi te ragaluloo yàlla di def santaane yi bàyyi tere yi yow ci sa bopp jaahil nga duhoo aalim aalim mooy kiy pratiqué lam xam rek moom la yàlla wax si nii moo tax mu ne qul waxal yow yonantu bi ne leen hal yastawi ndax dana hemoo lazina ña nga xam ne yaxlamuuna xam nañ wala lazina ña nga xam ne laa yaxlamuuna xamuñu dara innama yatazakkaru daal dana waaru ulul albaab borom xel yu sell yi ndax ñoo ko mën a jariñoo ki xam ak ki xamut mënuñoo xem ndax ki xam la mu xam bu koy jëf yàlla dana ko xamal lum xamutoon ki xamul tey jëf dana ca dugal lu ca bokkut mbaa mu génne ca lu ca bokk loolu lem na day yàqu kon xam-xam mosta dañ di gën ci lépp te moo war a jiitu ci lépp su ko defee kon xam-xam mooy ilimaan cheikh al islam haji ibrahim wax na ko al ilmu huwa al imam loo bëgg mu dox da nga cay jiital xam-xam bu xam-xam jiitoo lépp lu tegu ci kanam rek baax lu tegu ci kawam baax waaye bu xam mu mujjee dara dootu fi nekkati léegi nag daraja la ñuy jiital ci xam-xam ak magee la ñuy jiital ci xam am am la ñuy jiital ci xam-xam ndomba tànk lañuy jiital ci xam-xam bu yooyu yëpp jiitoo te fekk xam-xam ne ku fa dara du fa ne su ko defee kon nag xam mooy lépp rek moo tax nit ku ne balañ koo mën a fal place bu mu mën a doon li tax mu mérité ko mooy jub ak ak ak xam na jub boole ko xam ñi ñi ñiñ fal yëpp loolu lañ wax moom moom la yonent yàlla yusufa waxoon ijaal nii ala xasainil ardi lu tax mu ne inni xafidun alim kon wattu naa jub naa lool da duma sànk alal ji mais xam naa danaa ko teg ci yoon kon tamit kële di barsi ki eh, eh, Souleymane ba mu soxlaa ku andi gàngu naayam ga la ko la ko la ko jinne ja waxoon ana ah, atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuka kii ko man mën naa la ko andi lu gën a gaawlul allazi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuka kon ji nga ka yore woon xam-xam ba moom la waxoon ji nga tamit ba muy fal gaa ne ko koo ñuy falal buur bi mun ne jox na leen taawu taaluta ndax yàlla tëbb na ko ci xam-xam ak kartan su ko defee kon ñaar yi la place di laaj place bu nekk bala nga koo mérité na fa xam nekk na fa jub nekk su fekkee na boole ñaar yëpp ñi seet la place ba gën a laaj su gënee laaj xam boo jubu timit ñu jox la ko rek di di di mu li ñuy lor ci li ñuy jariñ su fekkee nag lim gën a laaj mooy jub donte xam newu fa ñu seet ku gën a jub rek kon waaye nag bu fekkee nag ñaar yëpp moom mënu koo ñàkk dañuy seet ku boole ñaar yëpp ñu door ko ko jox aaya ji tegu ci yàllaa ngi wax ne ku nekk ci palace bu ñu la xatalee demal nga gàddaay suufu yàlla yaatu na foo mënta doxalee sa diine rek mënoo fa doxal sa ngor demal nga seeti beneen place moo tax mu ne qul waxal yaa ibaadi yéen sama jaam yi na ña nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla ittaqoo na ngeen ragal rabbukum seen borom sax leen ci ragal seen borom xasanatun haljana de lillazina ak yi nekk la ña nga xam ne ahsanoo rafetaloon nañ fi haadihi ci àdduna bile ya rafetal seen jaamu yi aljana lañ jëm yàlla nañ ca bokk wa ardulaahi suufu yàlla si waasiatun aji yaatu la innama yoo fa daal def na matal saabiruna way muñ ñi ajërahum seen payoor bi xayri xisaabin ci lu duhut natt ci lu duhut peese qul waxal ne inni naka man umirtu digaleef na ma an abuda ma jaamu laaha yàlla muxlisan mbir mu may aji sellal la woo ko diine diine ji wa umirtu digaleef na ma li an akuna ma nekk awalal muslimin it njëlmeenu jullit ñi de ki njëkk a jënd carte de membre l'islam mooy sayduna muhammad xul waxal ne indi naka man axaafu ragal naa in asaytu bu ma bu ma moyee rabbi sama borom ragal naa azaaba yawmin bu ko lëm bis asimin mu màgg xul waxal ne yi allah yàlla dong abudu laay jaamu xasru la muxlisan bi ma agis yàlla la ñel ko diini sama diina ji de yéen nag faabudoo jaamu leen machitu nga leen neex tahdiid la min doonee lu dul yàlla xul waxal ne ina la xaasiri naka way perte ñi la fi na ñooñu nga xam ne xasiroo pertal nañ anfusum seen bopp wa ahlihim ak seen ñooñ yowmal qiyaamati keroog bis allah waawe dalika loolu huwa moom dong alxusraanu mooy perte almubinu ngay aji biir lañ perte tax lahum aji nekk la ñeexal leen min fawqihim seen kaw xulalun ay déele mina naari ca safara wa min taxtihim aji nekk la seen ron xulalun ay déele dalika déele yi mbugal yooya yu xawifu lay ragal loolaa yàlla bihi ca moom ibaadoo jaamam yi yaa ibaadi yéen sama jaam yi fattaqoo nii sax leen ci ragal ma de walladina gaa yi nga xam ne itani boo teet nañ ataaxuuta xiram yi an yaxbuduwaha walis ñi koy jaamu wa anaaboo ñu dellu ila laay jëm ci yàlla lahum aji nekk la ñeexal leen ci àdduna ak àllaaxira busra ak mbégte kon lii rek moo jara sonne yàlla nee na yéen sama jaam yi sax leen ci ragal ma képp koo xam ne yaa ngi rafetal fii ci àdduna boo ëllëgee kër gu rafet ga di xéewal mooy sa dëkkwaay di aljana ñi nga xam ne dañ doon muñ muñ ñetti xaaj la sabru ala sabru an sabru fii ñi muñ ba li leen seen borom sant ngi def ko as sabru ala taatilaay bi dawaamiha ñi def sabru an muñ ba li leen seen borom tere ñi ba ko muñ ci musibaat yi ci walla wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi yàlla nee na bu yowmal qiyaamee rus naa di leen peeseel ak di leen nattal dama leen di sotti yiw a bañ na doyal nañ moo tax kon ku la xëpp fii nattu nga di ko yërëm bu yowmal qiyaamee moo la xëpp xéewal ñi yàlla nattu woon seen cër ya manki moo kam bët lañ manqué ñi muñ ko wala ñi manqué tànk ñi muñ ko wala ñi manqué baaraam ñi muñ ko wala ñi manqué cër bu mën a doon ñi muñ ko yonentu bi nee na bu yowmal qiyaamee danañ leen sotti yiw ba ñu amutoon nattu seen cër yi manqué wuñ danañu ngéeju ne ñun de ko amoon siso di dagg suñ cër yi benn par benn ndax ñu mën a am yiw yi gaa yi yam kon nattu yi jarta xeeb de ndax yonentu bi nee na ashadu naasi balaan al anbiya ki gën a ëpp nattu ci nit ñi mooy yonantu yi moo tax yonantu yi tamit nattu yi leen dal moo gën a métti te muñ nañ ko moo tax ñooy ëpp xéewal ëllëg ku la ëpp ngëm tamit rek moo la ëpp ay nattu su boobaa tamit nattu yéen na muy ñëwee rek soo léegi noonu la xéewal yee kon gis nga jaamu yàlla gune am na ran bu ko yàlla yàllay fayee ba mooy muñ asaka am na ran bu ko yàllay fayee julli joxe a aj màkka waaye muñ moom amul ran yàlla day sotti borom xéewal ba mu ne doyal naa soxlaatuma dara kon moo tax muñ xam na doole ndax mu muñ jaamu yàllay zahir yëpp jullee ci hëpp doole jaamu yàllay baatin yëpp muña ci hëpp doole moo tax yàlla ne wastainu bi sabri wasalaati wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin moo tax mu boole leen ñoom ñaar jaamu yàllay zahir julli jaamu yàllay baatin muñ ndax am lu la naqari nga man koo faj nga mu xeex ak loola xam nga ne loola ku ko jaamu yàlla gu méttee méttee métti la aaya nag boo gisee yàlla wàccee ko sufiyaan mooy wax mu ne yàlla dafa njëkkoon a wàccee man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha xeetu yonantu bi ku def benn man yàlla ma fay fukk yonantu bi xiram gee bëgg xeer mu ne ko yaa rabbi zid li ummati doolil sama xeet bi yàlla wàccee xaat ne mathalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka mathali habbatin nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba képp koo xam ne dundalee nga sa alal te yàlla rek tax benn pepp ba nga joxe danaa la ko fulal juróom-ñaari pepp juróom-ñaar téeméeri pepp nga joxe benn ñu defal la ko juróom-ñaar téeméeri ful xam nga loolu xéewal gu rëy la yonentu baa xiir ga mën a yaa rabbi damaa bëgg nga dolli yàlla ne man zalazi yuqridullaha qardan xasanan fa yudaa'ifu adaafan kasiratan képp kuy lebal yàlla lu baax bu ëllëgee yàlla dana la ko fulal ful gu bëree bëree bëree bëri da koo bañ ba nakiiral ko yonentu bi ne yaa rabbi zid dollil ba tey sama xeet wi yonentu bi ko xiir la yàlla na door a wàccee aaya ji ne innama yuwafa saabirun ajrahum bi xayri xisaab keral la yonent bi ne yow yàlla dooy na sëkk nag moo tax kon muñ xam na doole de képp koo xam ne yaa ngi muñ nattu bu la dal bu mën a don moo xam nattu ba ñàkk la moo xam feebar la moo xam le la moo xam dee la moo xam cër bu manqué la moo xam alal ju yàqu la moo xam yaakaar ju tas la nga delloo lépp yàlla muñ bu ëllëgee yàlla dana la sotti xéwal ba nga ne waaye nag boo muñut di saalik wala ngay jël nattu ba di am ñoo ko jiiñ da nga yore sa coono dee boo liggéey yàlla mbugal la ku dee yàllaa la rey waaye gox yu bari ba fa yàlla gëjee rey yàgg na de ku ñàkk yàllaa la ñàkkal ku feebar yàllaa la feebar waaye am na place yu bari ba fa yàlla gëjee feebar le gëj faa ñàkkale kenn xamul kañ la ku dee rek am na ñuñ ko jiiñ ku ñàkk rek am na ñuñ ko jiiñ ku feebar rek am na ñuñ ko jiiñ loolu lépp ñàkk tawxiid la ke lay liggey ak kay def ay pexe yépp bu ca yalla andu du soti kon jox ko jiñ ko yalla rek jeexal ca kee mom ñaaw na ca rek pexe ma muy pexe rek donte mënu dara waye pexe ma muy pexe rek dana ci jëlé bakkar bu reuy bu ko mëna yobbu safara ak xol bu bon ak yéene ju ñaaw ji waye nak sotal mom ci dong la nek kon la dalati jiñ ko yalla mu neex mu naqari yépp neel yalla rek jeexal ca su ko defé nak yonantu bi mu ne man dama ragal suma moye sama borom bugal mu metti kon ñun buñ moye suñ borom fuñ jëm ku mënta mooy yalla bu waxe lola kon dafa ne góorgóorlu len ngeen jaamu yalla te selal ko bu ne nak manam jaamu len lu len neex da leni xuppu tahdid la wa yalla rek lañ wara jaamu ku jaamu lu la neex bu ëllëgee nga dajeeg lu la naqari su ko defé nak perte pire mo ñe pertel sen bop perte sen jabon ndax nit ku ne ñaari place nga am am nga kër ci aljana am ko ci safara am ñooñ ci aljana am ñooñ ci safara so deme safara nak wa aljana donu sa kër gaal sa ñooñ ña muy xuuraay ya soo demee waa safara tamit doon sa kër safara ga ak maanaam sa ñoñi safara ya moo tax kon nag perte pire nag mooy ña war a dem safara di doon maanaam këri gaaya ak ca njaboot ak gaaya yàlla nee na ñi nga xam ne tamit dañoo teet jaamu xiram di jaamu yàlla dellu ci moom fii ci àdduna bu ñu demee ba tool ki sukkuraat danañ leen danañ leen bégal aljaana yi wa malaaka yi war leen seen loosement ci aljaana ñi bég ñi dee ñi tëral leen di leen seede ñi bég ñi dee ñi sang leen sang leen di leen seede di leen jullee ñi bég ñi dee ñi suul leen ci bàmmeel di waxtaanee seen jëf ju baax ja ñuy bëgg bu ma yowmal xiyaamee ñi dekk téye seen loxo ya ca ndeyjoor téere ya ñuy bëgg ñi dem ci aljana ñi dem ci yàlla mu ñoo jégg siraat yàlla décoré leen ñi bëgg mu door leen a jox nag aljana ñi gën a bëggati kon jëf ju baax rek moo am solo moo jër a sonnee aaya ji tegu ci muy fa bashir ibaad yi mi ngi wàcc ci sayduna Usmaan ak saadu ak said ak abdourahman ibnu awf juróom benn sahaba lañ keroog bi aboubacar siddiq tuubee dugg ci diina ji rek lañ na ñun de xamuñ yonantu bi ci waxin waaye aboubacar mii kuñ xam la ci mbaax kuñ xam la ci jub kuñ xam la ci euh, maanaam dignité lu mu dugg rek dëgg la boo tax na ñoom juróom benn yépp tuub ak aboubacar moo leen tax tuub xam nga am na koo xam ne loo ko gis boo xeboo sa xel dal ca koo xamul ci caaxaan xamoo ko ci mbóosóor xamoo ko ci tappale xamoo ko ci luuxuur loo ko dégg mbaa nga gis ko rek na sa xel dal moo tax ñoom ba ñu aboubacar tuubee rek lañ ne même ñun buñ xamul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aboubacar mii nangul ko rek tax na ñu nangul nañu lislaam ñoo ne nga dégg maam alaaji malik diggu ngi ca xilaas ne wa man bi daawatihi usmaanu zu salami mooy juróom benn yooyee nga xam ne moom lay lim di sayduna usmaan sayduna abdurahman ibnu awfu saadu ak saxiit ak talxatoog subayroog ñu mel noona juróom benn nit lañ ñoom ñooñu maanaam tuub ak aboubacar gi moo leen tax a dugg ci lislaam mu yàlla nag di tagg lu mel noona ne ku dégg lu baax da nga ko war a jël ku gis lu baax da nga ko war a roy kon aaya ji dugalaal ne foo déggee lu baax rek yaa ko moom jëlal nga yóbbu ab jullit ñaara ko war roy ak romb foo gis lu bon rombal foo gis lu baax royal moo tax mu ne fa bashir na nga bégal ibaadi sama jaam yi ñan la mu ne alladina mooy ña nga xam ne yastamiuna danañu dégg alqawla alquran fa na ñu topp ahsanati ahsanahu la ca rafet doo wax la ca gën a rafet sëñ daara ne kon sañ daara seex mu ne tëgg dafa gàcce da ngay wax la ca rafet rek waaye bul wax ne la ca gën a rafet ndax kon day mel ni lii rafet lii rafetu te alquran lépp rafet fu ñu la waxee lu rafet tamit bul wax ne may jël la gën a rafet bàyyi fa la rafet jëlal lu rafet yëpp rek kon tëgg gi afaala tafdil la waaye da nga koy firi firim ismu faa'il moo tax mu ne fa bashir na nga bégal ibaad yi sama jaam yi allazina mooy ña nga xam ne yastamiuna dañuy dégg alqawla alquran fa yattabiuna ñu topp ahsanahu la ca rafet ulaayka yooye gaay lazina mooy ña nga xam ne hadaahum gind na leen laahu yàlla ulaayka yooye gaay hum ñoom ulul albaabi ñooy borom xel yu sell yi de ndax ñoo ko mën a jëriñoo foo dégg lu baax rek jëlal nga dem bul wane ne lii laay jël bàyyi lële lépp rafet jëlal lépp rek nga yóbbu ko afa man daal ka nga xam ne xaq xëy na àllay ci moom kalimatul azab baatam mbugal bi ma waxoon ne la am la anna jahannama ndax mën naa xem ak ki ki loola xeeyut ca moom afa anta ndax yow yonantu bi tunqisu man ngaa génnee mooy xettali man fi naari ña dugg safara déeréet ñu dugg safara mënu leen a xettali de sama ndigal rek moo leen fa mën a génnee waxoon na nag sànq ñooy war a dugg safara ak ay étage ma nekk seen suuf ña cay nuur ba ca suuf ay étage nekk ci kaw tiim leen ña cay xuus ba ca kaw bu ñu demee ba ca kaw rek ñi ralentir buum ji rek ñi ñi nuuraat ba ca suuf ñi xëccaat leen ba ca kawaat noonu ca la ñu nekk abadal na duñ dund duñ dee yàlla nag di wax yàlla nag di wax waaxal jaana yi tamit étage yi nekk suñ kaw ñun tamit yi ñuy seen da ngay toog seen étage yoo xam ne comme ni nga séenee biddiw yi biddiw asamaan yi ni nga koy tiimee noonu ëllëg da nga seen étage yu mel noona ndeysaan ñu tiim la ak leeraay ga ba ko yonent bi waxee sahaaba yi am sahaaba yi bu ne ko xanaa foofa yonent yi rekk ñoo fay dëkk mu ne aha kay suhadaawu yeeg saalihuna yi boo lëggee tamit danañ fekk yonent yi ci place yooyu yàlla nañu si yàlla boole moo tax mu ne laa kidi li fi nekk lazina ña nga xam ne ittaqaw teet nañ ittaqaw ragal nañ rabbuhum seen borom lahum aji nekk la ñeexal leen xurufun ay étage min fawqiha aji nekk la ca kaw étage yooya xurufun yeneen ma mabniyatun muy lu ñu tabax tajri boobu dana daw min taxtiha ca roon étage ya al anhaaru sewnda yay ñeent waxdalaahi muy dëxal ak yàlla gum dëxal te moom yàlla laa yuxlifu du sooyal almiada dëxal ba wala nga ne laa yuxlifu du sooyal laahu yàlla almiada dëxal ba de kon li yàlla dëxal ña ko ragaloon di ko jaamu étage ci kaw étage yoo xamee ni bët mosu koo gis xel mosu koo daj rafetaay ba mosta toq ci xelam doomu aadama yooya boo ko gisee rek da nga xeeb yi nga gis fi àdduna bi kenn xamul lu muy niru boo gisee yooya billaay dootoo bëgg a gisati yii su ko defee nag yooya yàlla nga ko xadul tabaarakallaahu jullit ñi naar yi dañoo bëgg étage moo tax mu wax leen ko dafa nekk sax mu raw étage yi naar yi dañoo bëgg dëkk ci kër goo xam ne tabaarakallaahu piscine yi mi ngiy daw sewnde yi mi ngiy daw eh, maanaam yanaa biix yi di daw di la wër dañoo bëgg ndox araab dafa bëgg ndox yàlla nag ne leen kër ya ma leen di ëllëg ci aljana yéen ñi tere ndox ma ngi wër côté bu ne la ci gëna a yéen yéemu day am sewnde bo xamné ne piscine bo xamné ne ndox manam meew la am bo xamné ne la am bo xamné ne ndox la su ko défé bo soxla rek bo défé commande rek mu ñëw fekk ci la nga nga nga xewlu ci gaay yi nak fi seen piscine li muy for for passé guñ piscine am ndox fofu rek lañu ñu piscine ab soow amagut bu sangara amagut yàlla nee na amna hal jana anharun min maa in asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar taxamahu wa anharun min asalin kon moo na piscine boo xam ne sax lem la am na fa kon yooye moo jara jaam moo jara sonn de gaa yi heggaguñ fa kon aaya ji tegu ci mi ngi wax ku yàlla ubbi sa dënn ba nga mën a dékku leer ak lislaam mënoo xem ak ku yàlla kaste sa xol ba nga mën a dékku lëndëm ak kéeféer ndax lëndëm ak ak leer mënuñoo ànd moo tax mu ne afa man daal ka nga xam ne sharahahu bina laahu yàlla sadarahoo dënnam ba lil islaami ci islaam fa huwa ta moom ala noorin mi nekk ci leer min rabbi gu bàyyi ko ci boromam ndax mën naa xem ak yàlla kaste dënam ba déeréet fa waylun xur wa ca safara lil xaasiyat ñal na way waw ñu xulóobuum seen xole min zikrillaahi walis tudd yàlla ulaayka yooya gaay fii dalaa ne ñu ngi ci sànkute mu bii nin gay aji biir de ñi yàlla hubbi seen dënn ya ñi dékkul ak lislaam manta xem ñi yàlla kaste seen dënn ya xol ya ñi dékkul lëndëm ak yéeféer kon lislaam yàlla koy hubbil nit du ku la neex mais ki neex yàlla mu la koy hubbil rek xol ba li xol leer ga cër ya sawar kontaan di ko jëfee di ko pratiquer def ndigal ya bàyyi tere ya su ko defee kon rek loolu rek moo jara moo jara sonne moo jara maanaam tamit toppatoo euh, euh, xol nag day wow yonent bi waxoon na ko inal quluba tasda'u kama yasda'u al hadidu ñu ne xol day xoomaat comme ni weñ gu ñuul di xoomaagee saxaaba yi laaj yonent bi weñ gu ñuul bu xoomaagee lu ñu koy fompee xam nañ ko xol bu xoomaat lu koy fomp yonent bi ne leen tilaawatul quraan wa ziyaaratul qubur mooy jàngaxal quraan rek sax kiti di ko settantal boole koog dem di siyaara ji ñu deeña siyaara ju deeñe ju deeña nag tabaarakallaahu kiimaan la ci moom lu nit dëgër dëgër dëgër boo siyaara jee bàmmee rek dana am lu mu def ci yow nga tim bàmme la koo xam ne moo la hëppoon romba tànk fuuf suusaan ko war ta jug ku la hëppoon halal fuuf fu ñu mos a jalee suuf mu ne tibbu leen suusi ngeen dem ngeen dem tuuru ji ko tey nañ suusi ci kawam ta jug ku la hëppoon askan fuuf foo xam ne fu mu jug nit ñaa ko dar côté bu nekk tey nag sànni nañ ko ci place boo xam dara du ko lu ay sax su ko defee kon nag siyaare bàmmeel moo gaaw ci fomp xol bu tilim booy jàng alquran tamit ànd ak settantal sa xol bi dana mujj xoomaat xoomaat ya ci nekkoon yépp day mujj tilim waxuma nag ku juux ci alquran weeru koor bu weeru jeexee rek mu teg kaamil ba fële nekk ramadaani yu te fekku nekku rabbaani yu kooko taxul ñuy wax su ko defee kon xol day wow xol tamit li koy wowal yonentu bi waxoon na ko na ñett moo gaaw ci wawal xol bari looy lekk bari looy nelaw bëri noflaay ñett yi moom lañ gën a bëgg ku ku sañoon jàpp ki barke mooy koo xam ne lu ko neex mu lekk te nu ko neex mu lekkee ko barke mooy heure bu la neex nga nelaw barke mooy ngay noflaay defoo dara yonentu bi nee na ñett yi ñu jàpp ne mooy barke mooy musiba ndax moo gën a gaaw ci wawal xol kon foo toll del xamal dara foo toll del néew looy nelaw foo tollu del néew looy lekk ku léew loo ku néew looy lekk yàlla feccalee sa biir ba leer waaye fa leer ga waroon a nekk yëpp boo fa defee ceeb fu leer gay nekk te loolu dafa bari moo tax kon doomu aadama daal bu mënta ñàkk lekk na xaaj biiram ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi ñam bu ñaareel bi ndox bu ñett bi mu noyyi ko luqumaan waxoon na doomam ja ne ko ku sa fees ku sa biir fees rek sa fikkiratu fees sa sa fikkiratu dee إذا ملأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة منكو سايو قمينني سقل سبير بفاسنا دوتو همت بين قلات دوتو همت بين فكرة قلات برافت دوتو كمانا جو خيتي وي منكو كسبير فاس تميد نك سي تيري دني تايل دوتو ننغوتي جامو يالا تايل رك نلو رك ممغي من موتا هنگان نايل شايتاني موي رك موي رك seytaane feeg reg goo mënul la dara boo kasee regg rek seytaane nag lu mu bëgg a def ci yow def na ko moo tax ñu naan bu weeru koor jotee dañuy tënk seytaane labal ko ci géej waxin la tënk ga lañ ca nam mooy bunt ba mu doon jaaree ci yow muy ñaari port la muy portoom naan ak lekk ñaar ya tëju nañ su boobaa nag day mel ni kuñ tënk nit nag booy xeex ak moom muy sab noon ngi tënk ko day neex a duma amatu dara lu lay mën a defalati su boobaa nag kon lu la mën a dalati bu ko jiiñ seytaane tënk nañ ko comme yaa ngi xoor laa wax nag waaye ba may wax nag ki xoor ki nekk ci weeru koor ki xoor duñ benn ki xooral juróom-ñaari cër yëpp laa wax bët ya xoor na nopp yi xoor na biir bi xoor na yi xoor na loxo yi xoor na tànk yi xoor na léegi-léegi nag buñ ne weer wi feeñ na juróom-ñaari cër yëpp xoor a ndoor am ñoo xam ne benn fan bët ya xori na ñaari fan nopp ya xori ñetteeli fan tànk ya xori juróomeeli fan loxo ya wori bu ñu demee balaa weer wee dee daal benn cër dong ngay dese ci koor gi mooy biir ba kese lekkoo naanoo rek waaye ci des yëpp wari na ku mel noonu seytaane tënkuñ ko ci moom de waaye ku xoor ni yàlla bëggee soytaane mel na ni kuñ tënk ci sa kanam amatul benn kartan bu mën a def ci yow jeexital su boobaa nag benn noon nga dese mooy mooy bakkan ba ak noonu bànneexu bakkan ba ak noonu àdduna ba yooyu neex naa xeexak ndax seytaane moo ci gën a jafe te ñaarel bu la seytaane gañe rek sa bakkan gañe la sa bakkan benn naay la am mooy nelaw te xam nga boo reggee rek nelaw ku xiif doo nelaw su ko defee nag bu la bu la seytaane gañe rek sa bakkan gañe la àdduna moom ngànnaayam amul solo mooy jaxasoo rek bëgg xew bëgg mbumbaay bëgg wéttaliko bëgg garant place bëgg commentaire loola boo ca muccee rek gañe nga aduna su ko defee farata rek bu jeexee nga toog moo tax jamono ji soo bëggee noppalu taqowal sa néeg farata la nga dem ca bu mënta ñàkk nga toog su ko defee tamit nag beneen ba mooy sa bànneexu bakkan bànneexu bakkan wax ju amul njariñ waaye wax farata bu jeexee nga noppi ku te nekk yaa gañe sa bànneexu bakkan bànneexu bakkan nag lu gañe du nax a gañe la ndax mooy yàlla ji gën a màgg ñu samp di ko jaamu moo tax alquran ne afa raayta man ittaxada ilaahahu hawaahu yonentu bi ne li gën a màgg luñ samp ci kaw suuf di ko jaamu mooy bànneexu bakkan ten teg leen foofu seen baaraam lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaa la yàlla nañu yàlla boole defal tawfiq yalla bol defal ñu taysir defal ñu ak barké ñi sant al oustad Hassan Diouf mi réaliser émission bi al oustad Sambo mi ngi fi tabarakallah ak oustad Cheikh Kouta oustad Cheikh Kouta timit mi ngi ci jotaay bi mom timit ndaysanam bëgg wal fajiri lol lo woote taysanam mu ñëw moom ñu ngi koy sant ñom ñep di ñep euh ñi ngi leen di sant di leen di gërëm alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sen librairie papeterie daara ji LPD mo leen doon may sen émission tafsirul Quran